seeni mbokk taalibe ñoo leen fas yéenee digtal gëstu yi ñu amaloon ci xas dëkk jaalibatul maraaxib suñu jubluwaay ci liggéey bi mooy yaatal ak jàppandal ko ci mbindeef yëpp di ko jaaree ci njumtuwaay ak xarala yu bees yi ngir xam ni sëriñ bi lu baax fu mën a ne alala ma te warees na ko ci liggéeyal ñuy barkeelu ci waxi sëriñ bi wanfan biha kulla man ahabaha wa kulla man ictana biha aw aana ala taxsiliha amin ya rabbal alamin sunu borom na nga jëriñ ci xasiida gi képp ku ko sopp wala muy def ay pexe ngir yaatal ko ak jàppandal ko mbindeef yi ani kan moo bind xasiida gii di jaalibatul maraaxib kookee moo di ahmadu ibnu muhammad ibnu habiballahi ibnu muhammad al kabir moo di jaamub yàlla bi tey liggéeykatub yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallama yaquulu abdullahi wa huwa ahmadu xadimu man sumaatuhu muhammadu mi ngi ganee jamono mbàkkeek bawal ci ama sharaha wala bi te loole moo di junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk wala junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar teel a wattu lool ak mboolem fànni xam-xam yi ba tax mu taalif ay téere yoo xam ni mboolem lu jàmbi aajowoo ci xam-xamu tawxiid wala fiq ak tasawuf làmboo na ko taalif it ay xasida yoo xam ni lépp da koo jëmee ci julli ak tagg yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallama limub li nga xamante ne taarif na ko ci xasida bari na bariwaay boo xam ni nopp masu koo dégg bët mësu caa tege te làmmiñ it lott na ci tudd ko sëriñ bi itam mel na ne firil nanu ana lan la jublu ci ay xasidaam ndax wax ne xaaf gi mooy qiraatul quraan mooy jàng alquran sufaat gi mooy salaatu ala nabi di julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallama gu njëkk ga allah mu te mooy jàpp leen alif gi ci topp anna allaha waahidun te mooy tawhid ji nga xam ni sëriñ dana ko feeñal ci am mbindam doyal gi moo di doomu ala zalika sax leen ci sama xasida yi xasida gi nga xam ne suñu gëstu ci la jëm sëriñ bee wax ne sammaytuha jaalibatal maraaxibi fii aajilin ka aajilin li raaxibi tuddee naa ko aji bijji yiw yi tey ak ëllëg te aji ñoddee jëmee ci yàlla sunu borom ay limu baytam nag mel na ne ak wuute am na ci yenn ci mollu yi dana indi juróomi téeméer ak fanweer am indi juróomi ak fanweer ak benn am ci sax yu indi juróomi téeméer ak fanweer ak ñaar li waral wuute yooyee nag yenn ci moolu yi dana indi bayit wi wamhu shaxaawatan naxat ni yaa alim wajal fuaadiya madinata ulum am ci moolu yoo xam ni dana indi ñaari bayit yi te moo di yaa may yukawwinu lana karama ala nabi saahibil alaama salli wa sallim bi jamii al aali wa sahbihi wa listajib suaali fan la ko sëriñ bi taalifee mi ngi bokk ci xasday géej gi te mooy juróom-ñaari at yi nga xam ni sëriñ bi def na ko Gabon sëriñ bi wax na ni sama xasida yooyee làmboo nañu màqaamay mbooleem gaa yu baax yi mu mel ni sëriñ Moussa Ka am na lum ñu ciy nettali ci xasidam googee di jazaawu shakur mi ngi wax ni keroog la fab jaari batul maraaxi bi sànd ci géej ga yóbbaloo ma waaxi bi ne yàlla maa ngi toppandoo jasoo jasooli dalaa ilul xayraatu fi li su dellusee fi man te tooyul raaful ma xam ne nangu na sëriñ bi sooful ba mu demee ba naagu ab sàndarma bu tudd Muusa moo ko fab jox mbër ma mu mel ne tey la ko sëriñ bi taalif mu xam ne nangu na sëriñ bay aalif mu mel ne itam sëriñ bi yeesalaat na ko ba mu demee ci ñaareelu tukkeem nga ca gànnaar te loolee mooy bi mu koy yóbbante sañ Balla Faale fii ci réew mi jox ko ndigalul mokkal ko ak képp koo xamante ni dikk na di jébbalu si moom bi sëriñ bi dikkee fii ci njaareem am na lu mu ci dolli te mooy bi mu gisee sëñ bu Buso yor téere bi sëriñ bi laaj ko ba mokkal na ko mu ni ko waaw sëriñ bi bég ca lool ne ko mat na ko dikkal ma dooleel la ci ab neexal te lool moo di bismillahi rahmaani rahimi wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa wa sahbihi واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين كان سرين sëriñ خسير جيد جالبة المراقب di سرين maraaxib loolee sëriñ bi dëxiñ na ko ci bayit mushaffaan bihi ku fiitu maasur waawug nawaytu ak yaawu nawaytu ak siinu tasurru ak chiinuk mushaffaan moo lay jox way sa chin te loolee moo di junni ak ñetti téeméer ak fukk ak juróom benn di dëppook ñetti at gannaaw bi nga xamante ni sëñ bi dem na ci géej gi te loolee mi ngi fekk sëriñ bi maa yomba bu nu seetloo ni mbooleem xasida yi nga xam ni sëriñ bi da koo jëmee ci salaatu ala nabi sëriñ bi bind na ko diggante weeru rajab ak weeru zul xijja ndax sëriñ bi wax ni min rajabin ila intihaasil xijja lahu alayya salawaatun xujja de gii di jaalibatul maraaxib di xas day salaatu ala nabi sëriñ mi ngi ko taalif diggante weeru rajab ak weeru shahbaan bu ñu xoolee wi wa bi kitaabati ya rabbi rabbi kulla mutaalixin li wajhi rabbi raa u rabbi ak jiimuk li wajhi ak baawu rabbi bu ñu xoolee bayt wi itam wa biya bashir kull aamin wasana man bi yuridu man taala ansina chiinuk bashir ak aynuk aamin ak baawuk man bi ak alifuk taala ak nuunuk ansina moo lay jox chaban naka la sëriñ bi bindee xasiida yi di jaalibatul maraaxib lépp ci bëxru yi ñuy jëfandikoo alxalil moo leen dajale te boobaak léegi yi ci bari wut waaye bokk na ci bëxëru yooyee bëxëru tawil bëxëru kaamil bëxëru waafir bëxërul basit bëxëru rajas sëriñ bi nag waxal na boppam ci biir xasiida gi wan bëxur la jëfandikoo urjuuzatan aabidatan lillahi maal kitaabi wa rasulillahi moo ñuy xamal ni sëriñ bëxu rajas la jëfandikoo waaye li tàmbalee ci bayit wi yaa man amarta zawil imaani kulluhumoo bi ay yusallu ala al muxtaari fi rusuli ba ci mujj xasiida gi bahrul basiir la fi jëfandikoo an yan xarala la sëriñ bi def ci xasiida gi mboole mboyi xasiida gi di jaalibatul maraaxib sëriñ bi def caa jëfandikoo loosoo maa la yalzam te loolee moo di ba mu ne yaxuulu abdullahi wa huwa ahmadu xadiima man sumaatuhu muhammadu dayel wi nga xamante ne moo mujj ci xàbb wu ne bu ci sëñ bi yemoon mu doy sëkk waaye bu ci nekk def caa jiital miim ak xaadem dellu niki mu ni bismil ilaahi wa huwa rahmaanu wa huwa rahimun amaanu noon bi nga xam ni moo mujj ci xàbb wu ne doy na sëkk ci way wi waaye wu ci nekk jiital na ci alif ak miim loole nag lu muy jafe-jafe-jafe ci wàllug way sëriñ bi mboolem xasiida gi noone la ko defee niki noonu itam niki jëfëndiko jinaza té lolé modi ñaari baat yoo xamné dañuy nuro té bokku daanel ñaari xab beyt niki muni, wa bi ya rabbi rabbi kulla mutaaliin li wajhi rabbi ñaari rabbi ye nga xamni ño ñoo ci xab wu li ñi nuro niro taxul ñu bok ak firi rabbi bu ñëk bi mi ngi firi yar rabbi bi ci mujj di firi yalla suñu borom jubluwaayu sëriñ bi ci xasiida gi mel na ni loolee sëriñ bi waxal na ko boppam haza wa xasdi xidmatun taqarru aynu nabi biha kama tabarru nawaytu min zalaami xidmatan tasur mushafaan bihi kufiitu ma asur xadrumtu min rabbil baraaya xidma liman bijaahihi kafaani sadma maa ngi leen di yëgal ni jublu naa ci bis bi liggéey boo xam ni dana bégal yonent bi sallallahu taala alayhi wa maa ngi yéene ci at bi te muy atum waysachin di junni ak ñetti téeméer ak fukk ak juróom-benn liggéey boo xam ni dana bégal yonent bi sallallahu taala alayhi wa mu mel ni jubluwaayu sëriñ bi ci xasida gi mooy bégal yenent bi sallallahu taala alayhi wa ci liggéeyal ko waaye bu ñu seetloo itam xasida gii di jaalibatul maraaxib làmboo na tudd sunu borom ak màggal ko ci turam yooyee mu wax ni fa lillahi l asmaul xusne fadooh biha ca loolee ci tàmbali xasiida gi mi ngi naa bismil ilahi wa huwa arrahmaanu wa di woo sunu boroom ci turam yooyee al ilah arrahman ak arrahim niki noonee itam ngi koy junju te di ko melal ci yeneeni tur yaa man bisaatu wa tamhiidu salli ala man ismuhu shahidu ya man malaikatuhu shuhudu salli ala man ismuhu mashhudu niki noonu itam xasiida gii di jaalibatul maraaxib làmboo na turu yonent bi sallallahu taala alayhi wa yi nga xamante ni talailul xayraat indi na ko ci wu ci sëriñ bi tudd dana julli ci moom boole ci ay ñooñam ak i saxaabaam gannaaw bi nga xamante ni tudd na yàlla sunu borom subhanahu wa yan jeriñ la khasida gi lambo mu melni ni sëriñ ko waxal bopam wa habli kulli may yaqra'uhu saadatan wa barakatan wa afiyatan fi daareeni amin ya rabbal alamin na nga may kep kuy jàng khasida gi texe ak barke ak jami aduna ak al-akhirah niki non itam wa alihi wa sahbihi waxfir li may yaqra'u zan nizam fi kulli zaman na nga jéggal képp kuy jàng khasida gi ci jep jamono wa hab lahoo jumlata ma taxtaaru lahoo ladayka innaka almuxtaaru wa xuttama alayhi min zunubi yaa maali am bi jaahihi zanobi na nga may képp kuy jàng xasida gi mbooleem loo xam ne bëgg na ko te nga sipp ci mom mbooleem ay bàkkaaram waaye njëriñal xasida gi yaatu na lool ndax dana jëriñ ki ko jàng ki ko am ak ki ko bind ak ki ko mokkal wa hab li may yaqra'uhu aw yaktubu xayral muna yaa man atat nii kutubu wa hab liman xafizahu aw xassala bi ay wajhin bin nabi amala ba tey xasiida gi làmboo na mbégtem yonent bi sallallahu taala alayhi wa ak mbégtem mboolem gaa yu baax yi yaa rabbana bashir xalilaka alxabib bi xidmati wa kulla saalixin labib nekk na ci xasida gi njëriñal mboolem mbindeef yi li zawil amsaari wa xayrihim yaa waahibal ansaari xasiida gi di jaalibatul maraaxib képp ku koy jàng dana la ñoddil li gën ci say xemmemtéef te dina la soob ci yoon wi gën ci yoon yi wajub li may yaqra'uhu xayra muraad waslukhu yaa rabbal wara xayra maraad sëriñ bi dellu wax ni wahab li may yaqra'uhu maa yaxbitu bihi siwaahu yaa jamilan yunshiton na nga may képp kuy jàng xasiida gi loo xam ni ku ko dut jàng dana ko ci ñee ba faw wa bi kitaabati ya rabbi rabbi kulla mutaalihin li waji rabbi yàlla nanga yar ci sama téere bi képp ku koy yër ngir sa jëmm ji wadd fax bihi xabla tawajjuhi lain ila siwa xaariihi antal muin na nga dàq iblis mënu rëbb ma laata moo jublu kiy jàng xasiida gi ba mu jëm ci keneen ku moom xasiida gi di jaalibatul maraaxib ba fay yare di tarbiya ndax sëriñ bi nit daana dikk jébbalu ci moom mu diggal la xasiida gi xamal la ne moom fi mu la waroon féete bis boo taqoo xasiida gi dal la fa féete te reena sëkk ci loolee wa bi kitaabati ya rabbi rabbi kulla mutaalian li wajhi rabbi mu mel ni bu ñu déggee lii nga xam ne sëriñ bi wax na ko ci xasiida gi day wuuteeg lool tuuma yi nga xamante ni léeg-léeg ñu wax ko ci xasiida gi te loolee di pexem seytaane ndax sëriñ bi wax na ni wadfa bihi qabla tawajjuhi lain ila siwa qaariihi antal muin moom moomee nga xamante ni ku nu rëbb la ku nu dàkku la te liggéeyam bépp weesuut fexe ba képp koo xamante ne teg nga ci siraatal mustaqim bu fexe nu la ca wàccee sëriñ bi nag fàggu na ci su boroomam képp koo xamante ne yaa ngi jàng xasiida gi laataa iblis di jóg di la jublu sax sunu borom dàkkul la ko ñu dikk ci lenn ci ay nettali ak i xissa yoo xam ne toxalee nanu ko ci njabootu sëriñ bi am na ku mësa a dikk ci sëriñ Abdul Xaadir di ko laajte ismullahi al te moo di turu yàlla wi gën a màgg sëriñ bi jox ko jaalibatul maraaxib ne ko danga nga doon laajte aw tur jëmm a ngi nii bokk na ci njëriñal xasiida gi képp ku ko yore romb ci ay armeel ku fa sunu borom doon mbugal dana ko jéggal ba ca déwén sa bu fa ku mel ni yow jaaraatul ci diggante ba toxalee nanu ci sëñ Abdou Samad Mbàkke moom sëriñ Chouaïbou ñetti bayt yi waxfir li kulli muminin wa mumina maxfiratan li kulli xayrin mudmina waxfir li kulli muslimin wa muslima maxfiratan taxsimahum min solama waxfir li kulli muxsinin wa muxsina maxfiratan lahum taxoodul xasana képp ku leen jàng yéene leen ku wàcc liggéey sunu borom dana ko jéggal ba tey am na bis mu siyaare ji ku baax sëriñ Saalixu Mbàkke yàlla na suñu boroom yokk ay leeram te taasuñ ci barkeem di ko xamal ni li sëriñ bi bind ci xasida dafa bëri lool ba mënee suta jàng lépp ma doon sàkku nga tegtal ma xasida goo xam ne ba ma ci jàppee dana mel ni maa ngi jàng mboolem lu sëriñ bi bind sëriñ bi ne dënn ba mu yàgg ne ko xanaa jaale batul maraaxib ngir li sëriñ bi wax wax ko ci genn bu ko defee ñu dégtal leen lenn ci molli xasida gi tàmmalee ko ci mbindum sëriñ bi te mooy tarjumaan ba mu joxoon sëñ Aafi Buso ak mbindum sëñ Masamba Mbàkke sëñ Xabibu Mbàkke sëñ Amsatu Jaxate sëñ Buso Ilimaan sëñ Mër Lamin Gay sëñ Xaamid Lo sëñ Lamin Sow di ñaan sëriñ bi nangul ñu liggéey bi te yaatalal ñu ko bilaa asan wala jawan wala xarar wala aydan wala balan wala darar te ñaanal sunu sëriñ di sunu jëwriñ ci liggéey bi sëriñ Hamsatu Mbàkke na sëriñ bu Mbàkke sunu borom gën ko fee yàggal te may ko ak wér te mottalil ko ay mébétam ci lépp loo xam ne naan la ko ci liggéeyal sëriñ bi te mu defar ko ci lu kaw ak njortam tey xam na liggéey bi ci ndigalam ak taxawaayam ak ndimbalam lanu ko amale wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu